mu sol aw xaptaan bu la de niiw yi taxaw si laafu avion bi yëkkati ay loxoom di tàllal ñi nga xamante ñoo di Sénégal yi di tàggatoog ñoom wutali fi nga xamante ni moo di Guinée Bissau kooke di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbokkeen tamit balaa ñu yàkkale xibaar boobu ñu sant leen gërëm leen si ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di info 2 TV yow mi dafa dal suñu vidéo bi fekk naa abonné ku lay ñaan nga abonné te activé cloche bi bu leen fàtte tamit di like vidéo yi di ñu soutenir suñu chaîne bi nga xamante ni moo di info sport Sénégal xam ne sport képp moo ko tax a jóg ñu yàggale xibaar boobee tey la li nga xamante ni moo di talaata fanweeri fan si weeru avril 2024 ki nga xamante ni moo di jiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéeg si avion wutali fi nga xamante ni moo di Guinée Bissau comme na mu ko defee woon fi nga xamante ni moo di Mauritanie gambi tay jii nak suñu mbokk mi nga xamanteni ñoo di Guinée Bissau ndax nak réew yi nga xamanteni ñoom lañ frontiero fofu la dem Bassirou président Bassirou Diomaye jaxar fay ndëkk amalel li nga xamanteni modi ay tukkem ginnaw ñi nga xamanteni ñoo ñoo ko fi jittoon di ay président nañ ko daan amalé man nañ ne képp ko xamanteni fal woon nga sa tukki mu njëkk man nañ ne bitim réew ko koy amalé rawat na sax fu nga xamanteni modi France ñi nga xamanteni ñoo ñu ko organisé waye mom mi nak def na lu wuuteeg lu ni mel ndax nak fi la ko ñëkke ci Afrique fi Mauritanie Gambie rawat na sax fi nga xamante ni moo di Guinée Bissau tey jii ñooñu nag ñu seq ak ñoom ay frontières yoo xamante ni nag yoo xamante ni mu kenn mënu koo séddoo waaye nag rawat na Guinée Bissau gi nga xamante fa la dem tey ku nekk xam ne jamono jii ñu ngi ci campagne campagne bi nga xamante moom la ñu wax campagne kaju campagne yu kaju boobee nag mën nañ ni ay exportation yu bëri yoo xamante ni du tuppeeku euh, day tukkee suñu diggante ñun ak ñoom maanaam dar kaso gi sal bi ñu jëlee fi nga xamante moo di Casamance di ko dugal ci ay nga xamante ni moo di ay di ko yóbbu bitim réew waaye tamit di jugee fi nga xamante ni moo di Guinée googee du dugg fi nga xamante ni moo di si biir Sénégal. tukkeeb tayam bii nag am naa yaakaar ne loolu nag dana bokk ci tànk yi nga xamante moo di tàkk nemmeeku yi waaye tamit dina tax tamit suñu diggante ñun ak Guinée Bissau googee nag mën nañ ne gën a dëgër bu baax a baax donte président ba nga xamante ni moo fa nekk jamono ji nag doon nañu dégg ñu naan ki nga xamante ni moo di président Macky Sall nag jàppale woon na ko sa jamono ba nga xamante ni moom lay falu comme na mu jàppale woon ki nga xamante ni moo di Adama Barrow